Médina ànd taxaw Médina nag boo ko déggee baatu taxawul boo ko déggee rek mooy moom amatul droit toog amatul droit noppalu ko ndax moom bokk na si ñu war a taxaw Médina en tant que tel ko defee rek moom it euh, dund na première vague di dund deuxième vague am na ñoom taxawaay biñ ci amoon xam naa di nga ci ñëw tuuti ak deuxième vague bi nga xamante ni moom moo gën a metti yan yan yan yan yan yan yan ci ngeen prévoir ndax ndax commencé ngeen vraiment di liggéey ci ni ngeen doon liggéeyee ci première vague bi ndax gisoon nañ ngeen amoon ci taxawaay bu am solo deuxième va deuxième vague bi lan ngeen prévoir. waaw jërëjëf Abdou Aziz waaw euh, di xam leen rek di que ni deuxième vague bi ba mu commencé léegi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy xalaat dëgg la commencé guñ ci benn activité mais xam naa ci fan yu néew ñaari fan wala ñett dinañ commencé activité yi parce que ku ne xam na ni première vague defoon nañ ci li ñu war a def. bu ko defee deuxième vague na dafa ànd ak euh, comme ni ñu koy waxee couvre-feu couvre-feu bi amoon na ci première vague deuxième vague ñëwaat ak couvre-feu kon liñ ci liñ ci liñ ciy indiwaat rek mooy maanaam côté sensibilisation comme ni ko Fada waxee léegi parce que ndaw dafa nekk loo xam moom mooy ëllëgu réew bu ko defee loolu dafay am solo ngay fàttali jeunes yi li leen war parce que tey ji ñun li ñu war ci dëgg-dëgg ci xale yi mooy maanaam xamal leen ni feebar bi ndaw ñi ñoo ko mën a jëlee ci biti indi ko ci biir kër yi ndax ku ne xam na ne ñi ngi naan du dal xale du dal xale mais xale xale day feebar comme mag nu muy feebar mais si mag ñi la gën a danger parce que soo xoolee ñi siy gaañu ñi siy wàññeeku ñu si ëpp ay ndawul ay mag lañ bu ko defee ñun deuxième vague bi ñu ngi siy prévoir sensibilisation dàqu ñu ba jël oto def caravane dugal ci benn nit sonorisation génn wax leen ni leen ba tey mbas mi mi ngi fii parce que boo xoolee président bu waxee ni que ni l'heure est kon suñ nee l'heure est rek il faut ñu bàyyiwaat xel parce que dafa nekkoon loo xamante ni mbir mi dafa dañ jàppoon dafa mel da nga ni woon deux deux mille vingt la alors que du deux mille vingt kese feebar la bu fi nekk ñun mënuñu ko tuddee lu dul balaa balaa nag bu jotee bu ñëwee li la war yow en tant que ndaw mooy déglu mag ñi mag ñi li leen war fi mu toll nii te li ñuy li ñuy xamle mooy ñaan moo ko fi mën a jëlee ñaan dafay boole ànd ak yar di ñaan suñu rakk yi suñu suñu doom yi ñu gën a góorlu parce que ñoom ñoo ñu mën a jàppale ñun li ñu war rek mooy toujours di sensibiliser parce que comme lu ko Fada waxee léegi léegi Medina man su ma ko déggee sama xol day sedd parce que tur bi man wallaay mën naa ni damay damay du ma xam lan la lan la may def su ma déggee tour bi man. soo gisee toujours su ma bindee si Facebook wala dara si damay bind médina parce que loolu dafa nekk loo xam ne ñun ñoo ko war a defar. parce que ëllëg ñun ñoo fiy des tey ñu ngi ñu ngi toog ñun ñu fi toog ñëpp ay ndaw lañ tey mag ñi dañuy dem bàyyi ñu fi o kon bu boobaa ñun dañu war fexe ba du ñu mujjee puso bi mu réer waaw loolu daal xam naa ne pour pour le moment mun nañ ko si wax deuxième vague bi ñu ngi ci préparé wu gën a continuer sensibilisation bi parce que loolu rek mooy mooy saafara feebar bi fi toll nii. président dañuy dem très rapidement xam naa ci yow la ñuy commencé waatee par rapport ak euh, deuxième deuxième question bi deuxième question bi dafay ñëw ci tey dogal ndogal bi président jël bi ma ko jëlee ñu gis ne dafa bare bi paa dafa bare coow bare coow am ay jafe-jafe laal ay secteurs yu bare moo xam ci ñuy liggéey la ñuy jaay moo xam ñi nga xamante dañ nekk ci wàllu transport maanaam secteur yëpp la affecté bi coow li coow li teel a teel a teel a teel a teel a tàmbale Médina tamit am ci cër ci biir coow li ndax tey mën naa ne mooy quartier bi nga xamante ni moom la ñu gën a dégg nag actuellement ni bokk na si ñuy gën a dégg ci wàllu coow bi ñu bëgg ci ci ci question boobu nga indi si ay éclaircissement waaw jërëjëf Abdou Aziz euh, Médina soo déggee li nga comme ni nga ko waxee coow li bari na ci Médina Médina c'est le poumon de Dakar Medina dafa nekk gox boo xamante booy dugg da nga fiy jaar booy génn da nga fiy jaar foo mun munti dem kon loolu il faut que coow li bari si Medina parce que boo xoolee tey jii nii defuñu euh, defuñu fi sax lu lu jar ñu naan Medina Medina mais loolu yàlla moo ko dogal il faut ñu nangu ko bu ko defee nag ñu ñu gën a góorgóorlu parce que tey jii nii euh, do dogal bu wàccee lenn rek moo ci mun a moom moom la ñu mën a def mooy muñ parce que gis nga mbir bu la dalee. muñ ngay njëkk a jiital ndax ku ne xam na ni couvre feu metti na heure bi gars yi di wàcc boo xoolee tey ji transport bi keroog maa ngi koy wax maa ngi naan tey jii ni bu fekkente ni transport bi ni ñu ci xalaatee nii loolu day yokk sax mbas mi parce que bu fekkee li ñu wax dëgg-dëgg ni mooy wàllante feebar bi li ma gis ñaari fan ñetti fan yi gars yi di ñibbi kon ça veut dire ni mbas mi dafa nar a yokk parce que dégg naa ñu ne dañuy wàññi transport nit ñi ci kaar yi mais dañoo au contraire am na ñu ma gis ñoo xam ne yéeg sax si kaw porte bagage pour ñibbi suñ ko mënoon def ko parce que tey mënuñu la ni 21 heures ngay ñibbi 21 euh, ngay tëdd yow ngay liggéeyee dakaar par exemple di ñibbi fu mel ni Géejawaay parce que boo xoolee tey ji nii ñi nekk maanaam si banlieue bi yëpp dakaar la ñuy liggéey li si ëpp ñu ngi Medina léegi nga war a génn jógee fii pour dem ñibbi fu mel ni yëmbal léegi yow il faut nga buuxante oto buuxante mënoo mënul ànd ak takk masque gars yi nañ takk masque mais da ngay buux nit masque bi wadd wala pour nga wax a nit ki foo nga wàccee sa masque pour mu mu leer kon ndogal boobu noonu diis na métti na mais il faut ñu jëlaat yeneen mesure yoo xamante ni moom mooy mooy tane mesure boobu man li ma si gënoon xalaat mooy tey ji nii bu fekkente ni yow nit ñi nga jàngal leen jàngoro bi nan lay wàllee jàngoro bi lu muy wàllee bu ñu ko xamee ñu moytu ko moo gën tey ji ñu ne couvre feu parce que man couvre feu dëgg la mu état mënul décider dara yow nga ci am looy looy looy si saak. mais président je je doguma la foofu mais je je je pense que ne sénégalais yi euh, mesures yooyu nga wax yaakaar naa ñëpp ñëpp xam nañu ko. Hmm. xaw ma Sénégal lu ñu xamul. waaye coronavirus moom bokku ci. Hmm. xam nañu ko xam nañu li koy joxe. Hmm. ci pour ci pour ci katoo bi est-ce que duñu xool beneen yeneen yeneen yeneen méthode ak yeneen solution ndax boo xoolee li gars yi sensibiliser si ci première vague bi macha allah amoon na sensibilisation. waaw Abdou Aziz euh, fi mu ne da ngay da ngay jàpp ni xam nañ ko mais am na ñoo xam ne xamuñu ko ba tey jii may wax ak yow am na ñoo xam ne xamuñu ko parce que tey jii bu fekkente ne yow dañ ne la nga nga nga génnee lor ci sa gémmiñ mu dal nit moom moo la koy wàll ñu ne leen takk leen masque kon wàllante dootul yomb mais tey jii nii dangay gis gars yi masque yi farataatu farataaluñ ko sax tey jii ñun toogaay bi ñu toog nii dañoo def ay distanciation sociale moo tax masque yi ñu ñu dindi ko mm. mais kenn ku ne sa masque ngeeg yow bu ko defee yooyu noonu da ngay da jàpp ni nit ñi xam nañ ko mais desee nañ ko xam parce que tey jii nii docteur yi si place ba ñuy fajee rek lañu nekk tey amoon na nu docteur yi doon gën a liggéeyee xëy na moyen mayu leen ko mais tey di dugg ñoom ci biir koñ yi ñun ni ñuy defee sensibilisation parce que tey jii nii yow xamuloo feebar bi dëgg dëgg dëgg dëgg da nga koy dégg parce que dalagu la ki mu dal tamit bu jamee ba ba nga xamante ni maanaam symptômes yi dugg na ko ba mu dem ba ba ñu saytu ko ci kër docteur bu delsee daray wax ni la man dara dalu ma woon xam nga loolu tamit da ngay naan feebar amu fi bu ko defee yooyu tamit dafa bokk ci li nga xam ne nit ñi dañ ko war a xam docteur yi di dugg ci koñ yi ci biir kër yi di waxtaan ak nit ñi parce que tey ji boo xoolee tey ku mel ni Ibrahima mi ci këru docteur lay liggéey kon tey ji nii moom lim si mën a wax man amaana damay jéem mais xëy na moom moo ma gën a xam sax maanaam moom ma gën a mën a expliquer feebar parce que ñun ñi bu ñu jógee di def ay sensibilisation lu ñu mun di def dañuy woo Ibrahima ah président bëgg nañ def nangam de lan moo si sa xalaat mënuñu ah lii ak ak lii ak lii parce que domaine bi ñu bi ñu nekk fi mu toll nii dañu commencé rek mais ñoom ñoo ñu si jiitu kon li ñu mën mooy lépp lu ñuy def ñu ne leen ah président kat ñun bëggoon nañ def nangam ñu jox ñu si seen i xalaat. macha hmm. allah yaakaar naa kàddu yi